maa dama xuloo ak sama. ah nee naa lu lu tax ñu xuloo xaw ma sax tax ñu de ñoom ñaar kenn ku ko xaw lu kenn mën naa ko neex du arrangé. Pape bi ak Maria ba ne ko ñëw bàyyi woo Laye ak Maria. Maria du ñu laa sama ne. Maria bi doon jooy. su tax mu jooy. su doon ko yoraa loolu. donc c'est arrangé. Pape bi Mariana lay jënde yu ñu Mariana la yow ñàkk nga classe ba Pape bi la jëndee Mariana da ngaa dox ba pënd xool sa tànk da ngaa dox ba